bu buñ ko waxee buñ ko xool bàyyi nañ politique maintenant il faut que APR xam ni la mu deful woon la mu deful woon ba bi mu jël pouvoir bi c'est le moment de le faire mooy réaffirmer en tant que parti d'opposition mais surtout organiser son parti parce que APR li mu am ci ci ci ci ci euh, masse militante li mu ci am mais su ko organiser dem à des élections législatives mais daf ciy génn ak députés yu bari te loolu la ñuy xaar ci moom parce que nag ku bañ a folle ko bul falu ku bañ a wàcc bul yéeg dañu remplacé woon Ablaye Wade tey li may wax ni Senghor amoon na 2 avril am Abdou Diouf am 2 avril am Ablaye am 2 avril am Bassirou Diomaye tey 2 avril Macky Sall am 2 avril Bassirou Diomaye 2 avril day ñëw donc perdre la perte du pouvoir c'est pas la fin du monde nañu xam ne bañ sos seen parti xamuñu woon danañ jël pouvoir am déet ñu def trois ans yàlla jox leen ko ñu def douze ans def fi un bilan boo nga xam ne fier vraiment war nañ mën a taxaw fu nekk wax liñ fi def à part de ce moment bu ñu perte pouvoir bi il faut qu'il se réorganise def une opposition te jàpp naa ne loolu la ñuy def maintenant am na ñoo nga xam ni dañuy ñëw ci parti c'est pas des hommes politiques peut-être yeneen considération moo leen ci indi ñooñu bul conte ci ñoom seen départ bu mu la jaaxal bu mu la bett mais avec l'ossature qui est là qui peut encore faire de